mën koo jël en maa ngi lay nuyu monsieur Sarr. ça va bien merci xanaa def eh, la eh, promotionnaire et ami du président de la République monsieur Bassirou Diomaye Faye. Euh, eh, la seconde à la jusqu'à l'université même et depuis lors on s'est pas séparés. Euh, waaw xanaa mbégte bu rëy rey ndax koo xam ne yàlla da leen boole woon ci njàng ngeen dem ba mbokk ak xaritoo dugg fa yàlla yëkkati ko tey ba teg ko ci bopp réew mi mënoo def lu dul kontaan te xel mi aussi ñëwaat ne dama war a dem lycée bi ma jànge woon def fa benn lancement ci setal sama gox nga xam ne dina mën a inspirer jeunes Sénégal yi kon loolu eh, mbégte bu rëy la ci ñun ñi nga xam ne bokkoon nañ ak moom classe yàlla def aussi suñu diggante mu wéy ba heure bi waaw. d'accord yéen xamante woon wala juste da ngeen daje woon ci lycée waaw lycée la ñu xamante. mais yàlla mooy def mooy boole ñi war a ànd. depuis lors ba léegi de 97 ba léegi ñoo ngi ànd kon dañuy wax rek ne ndogalu suñu borom la ndax fa ñu jóge bokkul Njagañaaw la jóge man ma jóge tooglu dans la commune de Diass mm. waaw. Mm-hmm. alors euh, ban moment ngay fàttaliw tey euh, bi ngeen di bokk classe parce que nee nga euh, seconde ba terminale ba université même kon ce qui dit que xam nga bu baax a baax ki nga xam ne moom mooy président Bassirou Diomaye Faye tey jaar-jaaram si wàll wàllum cursus scolaire tey nan nga ñu ko mën expliquer. waaw depuis bu ñu fi dajee di wax fa dëgg yàlla xam nga ay kaw-kaw bu ñu dajee rek seen yitte yëpp njàng lay doon mu nekkoon nit ku farlu yemoon ci njàng bi xaj na nag jeune la ñu woon ay daanaka ay xale la njàng daal yàlla defoon na ko ci moom yàlla defoon na ko daanaka ci classe bi nga xam ne moom la ñu bokkoon moo tax classe boobu sax dafa xawoon exceptionnel ci lii Demba Diop ba yàlla def bi ñu defee examen juróom benn nit rek ñoo fa amuloon bac année ba ca topp yàlla def ñu amee kon. meilleure classe fii si lycée bi à l'époque. sax meilleure mais yàlla daf ko baaxe woon. xam nga nit euh, am mun nga jàng mais yàlla mun na la am jagleel. Bassirou mooy président de la république yàlla dafa am lu mu ko jagleel bokkul ak maanaam mën jàng mën jàng bi ñëpp a ko ko xamee. muy fii ci lu ñu xam moom bokk li ñu fekkee ba université te loolu wane na ko ndax am na fu mu toog ne defoon na ñaari concours ENA euh, génn genn ñaari mujje bàyyi benn bi choisir benn bi kon loolu rek wane na ni kii parcours am parcours bu baax la ci wàllu njàng ci wàllu jikko aussi nit la koo xam ne nit ku maandu la ñu xam ci moom nit ku dëggu nit ku am fit Eh, am gis-gis ci àdduna ndax loolu du tey ñun ba ñu nekkee sax ci école daan na laaj yenn laaj yoo xam ne suñu yenn prof stégios yi dangay xam ne kii nit ko am ambition la am na fu mu bëgg a jëw bu boppam daan posé maanaam bi nekkee en classe ak dégg nañ témoignage yi nga xam ne ay anciens professeurs am def nañ ko euh, moom nga nekk di dëggal euh, tey tamit euh, boo doon fàttaliku si seen ànd yéen ñaar si wàllum liggéey si wàllum travail parce que jikko bi nga xam ne gis nañ ko si moom bëri na suñu naan président bu yaru la kon ndax loolu mooy dëggal que ne lii lu yàgg la si moom waaw mooy li ma la wax sànq rek maanaam suñu borom daf koo am lu mu ko jagleel non seulement yaru gi yàgg na ci moom mais ambition bi yàgg na ci moom waxuma la sax poser question ay ci classe mais bu ñu daan génne classe dañ daan ànd ak suñu benn professeur bu ñuy wax Abdoulaye Sène maa ngi koy nuyu de passage gis naa ne moo ngi fi yal na ko yàlla yokk weer monsieur Sène da ko daan laaj question yoo xam ne wax fa dëgg yàlla question yu xoot la maa ngi fàttaliku mas na ko laaj ci wàllum honnêteté ak euh, loyauté mu ne ko bés bu demee ba nga jàkk euh, jàmmarloo ak ñaari situation yooyu prof bi daf ko ne bu boobaa choisir d'être honnête parce que la loyauté mooy ki nga seqal liggéey mais honnêteté ça englobe beaucoup de choses yoon kon loolu wàllu jikko la nga xam ne kon yàgg na di gëstu ci li nga xam ne war na ñoŋal dundam. d'accord kañ bon loolu nag dama koy denc parce que c' est des questions d' état mais xam naa daal ñoo ngi déggante ñoo ngi déggante waaw incha allah. jërëjëf alors euh, ñu dem nag euh, si euh, alentour porte bi si beneen côté bi tamit ngir man leen wan kon fi nga xam ne bu président de la république son excellence Diomaye ñëwee kon foofu la war la war a jaar kon mu ngi noonu hmm, ñu ñu dem rek wan leen kon lan mooy xew ambiance bi si biti ndax xam ngeen boobu rek ñu ngi xaar 10 heures 16 minutes moom moo jot dégg ngeen. Euh, témoignage yi nga xam ne euh, ñi nga xam ne kon ñoom ñooy ay ay professeur euh, ay professeur fii si lycée Demba Diop hmm, à l'époque kon yëkkati ay kàddu seede daal di koy seede ki nga xam ni moom mooy président Diomaye ki ngeen mujjee dégg nii rek moom moo nekkoon ancien de camarade de classe am xam ne ñoom ñaar depuis seconde kon ñoom ñoo bokkoon euh, li nga xam ni moom mooy classe euh, ba terminale bi mu amee bac également ñu continuer dem fi nga xam ni moom mooy sa duwaanu euh, université kon ñu fàttali leen tey journée setal suñu réew bi nga xam ne kon ñu ngi koy amal ci Sénégal président nag tey jii mu war a kon ñëw fi nga xam ni moom mooy alors fii ci duwaanu Mbour rawatina nag si lycée Demba Diop bu Mbour bi nga xam ne kon Euh, fii la daal di euh, jàngee donc euh, ñu wan leen li nga xam ne itamit moom mooy ñiy amal set setal parce que ñu fàttali leen ne donte président de république daf fi ñëw waaye xam ngeen ne tey tamit journée setal suñu réew donc ma jël quelques réactions yi nga xam ne suma gars yi fi nekk la salaamaaleykum gars yi maa ngi leen di nuyu. na ngeen def. waaw ñu ngi professeur. Ah, ok je me nomme professeur d'enseignement secondaire. Voilà. Lycée Demba Diop. Non pas ici. Mm. tey mu nekk journée gis leen tey am si taxawaay bu am am solo euh, tey lan mooy nekk message bi nga xam ne tey kon fas ngeen koo lancé rek. waaw tey de dañ fay ñëw pour suivre le président ci message bi nga xamante ne moom la lancé au niveau national chaque première du mois pour ñu ànd seeg moom parce que c'est une initiative jàppale ko. pour seetal suñu réew seetal suñu réew nag boo ko gisee bépp patriote war naa jóg taxaw voilà c'est ça. tey mu choisir ñëw lycée Demba Diop Mbour loolu loolu lan lan lan lay signifier. fierté c'est un contentement parce que nous sommes tous issus du de Demba Diop nous sommes tous des ressortissants te moom bu nekkee suñu ancien aussi ñëwaat ci suñu lycée bi day gëmalaat lycée bi dundalaat lycée bi xam ne lycée bi mën na former des élites voilà. oui très bien merci beaucoup. ñu ngi leen di jaaraat bu baax a baax yéen ñi nga xam ne kon voilà. Hmm. benn plateforme. Jolof Santé. donc euh, mu ngi noonu donc euh, ñu ngi leen di jaajëfal en tout cas bu baax a baax euh, si li nga xam ni moom moo nekk. moom moo nekk réaction yi ñu ngi ak ba tey ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi taxaw fi monsieur maa ngi lay nuyu salaamaaleykum. alors kilifa gi ça va na nga def. ça alhamdulilah. Euh, Idi seen laa tudd quoi waaw maa ngi dëkk mbuur nekk conseil départemental fii à Mbour quoi waaw waaw. alors tey euh, ñu de xam nga dañ ak kontaan rek quoi parce que xam nga ñun ñun ñëpp nous sommes de Mbour on est né à Mbour bon on est né en brousse donc comme le président Diomaye boo xamee ni mu ngi jàngi au lycée Demba Diop ñëw fii di di di di di li ñuy wax naan fortank lay def si quoi. donc vraiment toute la population de Mbour le département sax laay wax bon ñëpp vraiment kontaan nañ ci bëgg nañ ci quoi muy lu rafet quoi loo xam ni président def na ko waaw. setal aussi ñu gis ci taxawaay bi nga xam ne euh, kon lancé nañ ko ak ouverture yi classe bi loolu aussi noo ko gisee. waaw set setal moom vraiment c'est une affaire boo xam ne bon ñëpp a war a set parce que Youssou sax woy na woy na set nit da war a set sa bërëb set fa ngay liggéeyee set fa jàngee set lépp set set daal nit. te vraiment ak école yi boo gisee ñax mi nekk si école yi ndox meeg yooyu xam nga lépp su ma ne mooy set set bi da cee baax vraiment waxuma la par mois sax mais bu ñu ko mënoon def chaque semaine sax day baax quoi parce que vraiment tamit c'est Sénégal qui est avant quoi waaw merci. mu ngi noonu maa ngi gis euh, Fallou ki nga xam ni moom mooy Sankis hmm? euh, voilà euh, ñu jël suñu doyen. waaw c'est le doyen le grand. waaw d'accord alors doyen ñu ngi leen nuyu. Euh, ñu ngi lay fay. waaw man Mourtala Samb laa tudd di directeur école à la retraite mais gën maa xam nag ci communicateur traditionnel contemporain ndax mbuur laa doo di doomu géwél. Ah. d'accord kon euh, tey jii lan la lay fàttali bu ñu gisee tey ba ancien élève tey devenu président de la république euh, wëlbatiku ñëwaat ci lycée bi ngir découvrir tamit lycée bi nga xam ne kon fii la jaar. waaw xam nga li ma laaj day neex a tontu ndax ab jàngalekat la waaw très rapidement ndax dama doonoon jàngalekat boo gisee sunu ministre mas na fekk mas naa wax lu mel noonu Serigne Mbaye Thiam ñu fàttali ko rek joxe tur ndax aussi nit ku ne da nga koy delloo njukkal moo waxoon bi mu duggee doon ministre de l' éducation nationale mu ni école yi pour mu jag il faudrait que les anciens élèves acceptent de faire ce qu'on appelle le retour au royaume d' ku ci nekk war ngaa delloo école ba nga jànge ji woon nga delloo ko njukal boo fa doon deg benn brique sax mbaa nga def fa set setal bu mel ni li président Diomaye def rek day jëlmale école ba kanam te école bii war na fee mën a ñëwaat avec aisance parce que nag c' est l' enseignant qui parle bi mu fi nekkee defee seconde première terminal seconde mu jël P. mu jël premier de toute l' école. ba moo moo jëloon premier waaw moo doon major mu nga am meilleure moyenne euh, première mu jël deuxième terminal mu jël premier. waa de l' donc kon bu toogee ba doon président de la république am xel mu rafet ni naa ñëwaat sama école xam na ni fii néewu fi woon di grève ak sànni xeer il est le bien ici c' est le président de la république qui fait le tour au royaume d' école kooku il est le bien accueilli il est yàlla na ko yàlla jàppale sagal ko defal ko lool te day defal nag élèves yi sax da leen di dolli xel day dolli xale yu fit ndax quand le président de la république fi la doon jànge boo fiy jànge war ngaa xam ne yow war ngaa mën a doon président de la république loolu day doon benn boost ci élèves war a mën gën a xam ni élève wu tey bi mën naa doon suba président de la république ndax joomaay bi mu fi nekk di jàng ab élève kese la woon kon bu ñëwee fekk si ay naxawalu élève am wan naa mën élève ni leen kii tey doon président bu ma góorgóorlu war naa mën a doon ëllëg président ni moom ndax ni nga doone élève tey suba noonu ngay mën a doone président waa c'est le retour